am na ñuy woote woo borom xam-xam yaakaar naa ne fi mu toll nii jamono yi ñu toll nii moom croix képp lañ méritoo amul leneen lu ñu méritoo te ñoom nag am na fu ñu leen doon xaar voilà fi ñu leen doon xaar mooy ñu jàngal ay ndaw ñoo xam ne nii ay boromi xam-xam la ñuy doon ñu ngi leen di xaare fii ak 2030 mais sero wax ju bari rek Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal seen analyse ko yi nga na leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajafal nañ leen siyaar nañ leen way leen di topp Fall 94 Walf Sénégal voilà Cheikh Bara Ndiaye Ousmane Sonko wal Walfadjri ñett yi de sénégalais yi namm nañ leen ndax dañuy wax lu leer dañuy wax ay dëgg Eh, te tamit nit ñi dañ leen di bàyyi xel lan moo tax ñu leen di bàyyi xel mooy ci suñu langue national bi ci leen di waxee ñun ñu mën a xam li ñuy wax mën a dégg li ñuy wax duñ fi nekk di laaj ni waalaw lu mu wax moo tax am na ñu fi nekk ñoo xam ne ñett ñi bañ leen noppee dégg ba léegi ñu ngi lapp-lappi fu nu ña nga fa nekk di taxaw di wax te nee na nooy ay borom xam-xam lañ waaw nee na nee na woo borom xam-xam la moo tax foo tourné ci site internet yi ci plateforme yu bëree bëri ñoo ngi ko kurwaa voilà boo dee boo nekkee rek euh, borom xam-xam di ko wax nit ñi di dégg say wax ñu ne dangay bind xaw ma da ngay jënd ay article xaw ma da ngay bind wala nga dem a dem a dem ba nit ñu xam yow yaay kan yow nga dem ba sa jëm bopp nga xam yow yaay kan nga xam fi la nit ñi toll ak foo toll nit ñi xam nga foo toll nit ñi da nit ñi moom fi ñu tolloon ci yow pare nañ ci boo doon quatre-vingt-dix pour cent xamal ni dix pour cent nga dese loolu moom béy nga xam ko bu baax a baax a baax voilà moo tax xam-xam kenn du ko caaxaane boo ko amee soxlawul wax ji bari soxlawul di forcer di dem ci ay plateau soxlawul nit ñi di la di am na ay borom xam-xam yu mag yu nekk fii écrivain yoo xam ne kenn xamu leen te chaque jour la ñuy def ñoom ñoo koy def ña koy génne du ñoom ña koy defe ngi ci suuf voilà yow nag nga jaakaar ni yow yaa nekk ci télé yi plateau yaa ëpp xam-xam ñëpp yaa dàq bind fekk dimuwul noonu da nga cee gën a bari coow rek waaye sa coow loolu ngay wax na ak li nga wax barki moo Ndiaye loolu wane na yow doo borom xam-xam ñi nga xam dañuy topp xam-xam di gëstu ci xam-xam di wax ci xam-xam di dox ci xam-xam xam na ni yow doo borom xam-xam ndax boo nekkoon borom xam-xam am na feneen fu ñu lay xaar ci Sénégal ak dal ak bokkoo ak bokk ndey bokk baay xàccandoo di dóorandoo saw bu fekkee tey far moom mënta ñàkk bu fekkee da ngaa ci côté pouvoir bi nga wax loo xam ne ñoom bu ñu la déggee dinañ mën a settantal si wax jaar ci wax jooju noonu ngir Sénégal mën a mucc waaye malheureusement voilà fii ñu tolloo voilà xaw ma man lu xew voilà ñu ne tey nag yaa mën a toog ne di wax lii nga xam ne ni ay quatre vingt pour cent yëpp buñ leen rayoon loolu mooy waxi lan ci borom xam-xam doo borom xam-xam bu fekkee borom xam-xam nga ñu bari wedd nañ ko voilà parce que loolu nu ko borom xam-xam di waxee man daf may jaaxal voilà kan nañu gën a ubbiwaat sunu bopp yi bu baax a baax a baax li doon lëndëm ci ñun mi ngi leer ci sunuy bopp ndànk-ndànk li ñu doon présenté ak ñi doon présenté wu suñu kanam loolu léegi mi ngi leer ci sunu bopp muy leer nii nga xam ni kon kenn ku ci nekk lu mu yàgg-yàgg rek li nga bëgg a xam da nga ko xam bu lu fi fan yu bàyyee voilà Cheikh Bara Ndiaye Ousmane Sonko ak euh, Walfadjri Walfadjri euh, mooy tele boo xam ni daanaka mën naa ni ñu ci ëpp ci population bi moom lañ doon teewlu Cheikh Bara Ndiaye nitu daara la mën naa ne jaaru ci ban école mais tey jii quatre-vingt-dix pour cent yëpp dañ ko doon déglu ci Sénégal moo tax lu waral lool voilà nga xam ne lo maanaam lu nekk luñ ko tegal lu nekk mën na ko argumenté wax ci loo xam ne génnal la ci loo xam ne loolu da nga naan est-ce lu mën a nekk la voilà xam-xam moom am na ñoo xam ne suñu borom da leen may xam-xamu fatu xam-xam yoo xam macha allah wala boo ko jàngee boo ko jàngul yëpp da nga koy da koy xam voilà suñu borom boo fattee fii mu mu mu sekkati fee kenn mënut a xeex ak moom waaw suñ borom noonu la boo fattee fee ba nga yaakaar ne fee fatt na jeex na am faneen foo xam ne suñ borom da koy sekkerti voilà parce que xam nga moom suñ borom moom géer ak moom moom beneen affaire la kon nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax réew mi solution bi lenn képp la bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo kenn ku ci nekk sa nguur day jeex voilà ndax fii yaakaar na am na nguur fi nekkoon voilà nguur yooyu anuñu jeex na mais après geneen day ñëw noonu la continuer mbirum mbirum àdduna moom noonu la rek ku ko xam nag dangay ngay noppalu voilà doo sonn doo fi nekk di ngër-ngëri doo fi nekk di sonn kenn du la xam ci dara kenn du la yàpp kenn du la xam nga mais fi mu toll nii ma ne euh, borom xam-xam nga xam ne nii foo tourné yaa gis ñu koy croix muy Yérim Seck mi wax dëgg yàlla nee la sénégalais yëpp xam nañ moom mooy kan voilà parce que waxam bi fi mu toll nii foo tourné ci ànd moom la ñuy xanaa moom sax bu toogee wala mu xalaataat dana xam ne li mu wax de ah xamul lu tax mu wax ko. njuumte la wala du njuumte waaye quatre-vingt-dix pour cent buñ leen rayoon mais sama waa loolu ci ay sénégalais ci ñoo xam ne ñoo bëgg réew mi bokk ndey bokk baay